internet yi safoo sene info point net ak sene info international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal tënkub xibaaru tey ajuma di 10 dañ koy tàmbaleek xibaaru biir réew mi ak tolluwaay jàngoroy coronavirus Sénégal amatina ñaari nit yu ñàkk seen bakkante li ko sabab di mbasu covid bi loolu nag day yóbbu ci limu nit yi nga xam ne kon ñàkk nañ seen bakkante li ko waral di mbas mi ba sub tey bi def nañ tests mu am ci 98 yoo xam ne dañoo positif 81 yi ay cas contact suivi la muy ñoo xam ne am nañ jàngoro bi bañ xam ko ba di leen faj ñoom ñoo ko jot a ay nit ñu saafanteel mu am 17 cas de transmission communautaire muy wàll yi nga xam ne day am si biir nit ñi te sax duñu xam nan la amee ba léegi ba su bi am na 142 patients yu ñu hospitalisé woon waaye bi ñu leen contrôlé dañoo négatif kon ñooñu am na nag 38 cas grave mu ñoo xam ne seen wér-gu-yaram dafa sooxe lool ba sax ñu ngi Sowétas bi fi jàng duggee nag ci Sénégal ba bésub tey bii konte nañ fi 7882 cas positif mu am ci yoo xam ne wér nañ 145 ñàkk nañ ci seen fi mu nekk nii am na 2200 am na 2425 patients wala ay malades yoo xam ne ñu ngi sous traitement démb nag kii di président directeur général bu Sedima Babacar ngoom jàkkaarloo na ak journaliste yi ngir daal indi ay leeral ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la am jafe-jafe jafe-jafe ay suuf nga xam ne moom la am ak ñii di population. Euh, bu Ndingler village waayu Ndingler moom nag bi mu gannaaw bi mu jëlee kaddu nag euh, daal expliqué waat na problème bi nag seetal boppam moom nag li li ñu fa gën a jàpp daal mooy dafa seetal boppam seetal na boppam kon ba sax moom nee na kon euh, fi mu nekk nii mbir mi nekkatul mbirum suuf wante mbirum xool fu dëgg bi féetee la moom nag gannaaw loolu sax ci la xamle ne terrain boobu ñii di ay village yu jilax ñoom ñoo ko ko jox gannaaw ab délibération bu municipalité bi moom sax nee na fi mu nekk nii terrain ba Euh, ay gendarme ñoo koy garde te loolu tax na mu ngi ciy fay lu toll entre huit ak neuf millions quinze jours yu nekk euh, ci geneen wet ga nag kii di Birahim Seck nga xam ne coordonnateur forum mooy coordonnateur forum civil coordonnateur national bu forum civil nga xam ne nag moom day jàppale ñii di population yooyu la di waa Ndingler ak yu jilaax moom nag nee na conférence de presse Babacar Ngom conférence de presse bu Babacar Ngom bi daal liñ ci gis mooy ab nit bi ñëw daal di defar di defaraat image am ay ab boo xam ne daal dafa ñëw taxaw di defar image am loolu la fa gis ak ay mbirum daal kuy def ay émotion ñëw pour indi ay affaire émotion waaye daal nee na moom euh, liñ doon xaar mooy euh, but du jeu bi maanaam liñ doon xaar ci conférence moom mooy mu ñëw éclairer sénégalais yi euh, wax leen lan po problème foncier boobu exactement lan la te it moom moom di bira Birahim Seck mu ngi xam le ne ñii di population Djilakh ak bu Ndingler nee na réerawuñ benn yoon te kenn mënu leen xaajale tooluwaay jàngoro coronavirus nag ci Afrique ba démb ci 9 juillet jeudi bi ñu ngi amoon 523 702 cas confirmés mu am ci 12 244 yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan chiffre yi nag bureau régional de l'OMS pour l'Afrique moo ko joxe ñetti dëkk yi nga xam ne ñoom la jàngoro ji gën a sonal fii ci Afrique Afrique du Sud la ak 224 665 cas am mille 3062 am 3600 de décès Égypte topp si am 78304 cas ak 3564 décès Nigéria topp si am 30 249 cas ak 684 décès àdduna wërngal képp nag jàngoroy coronavirus kon euh, laal na fi lu toll ci 12 millions 268 mille 630 personnes mu am ci 6 millions 740 mille ne jot nañ see wér 554 mille 924 personnes faatu nañ kon àdduna wërngal képp te jàngoroy coronavirus euh, jàngoroy coronavirus sabab ko. États-Unis nag ñoo wéy di gën sonn si euh, mbas mi booy xool sax ñoom euh, ba fa mbas mi duggee ba bés tey bii ñoom compté nañ trois mille cent soixante trois millions cent soixante cinq mille mu am cent trente cinq mille quatre vingt quatorze doomu Amérique yoo xam ne kon faatu nañ te li ko sabab di mbasub Covid 19 bi. ba léegi ci xibaaru bitim réew lañuy euh, la ñuy des ak beneen jafe-jafe beneen tension boo xam ne daal kon judd na ci diggante Washington ak Pékin kon muy Chine ak. États-Unis ñii di nag autorité chinoise yi ñoom dañoo annoncé daal bésub vendredi bi ne dinañ fayu maanaam dinañ amal ay représailles contre waa États-Unis gannaaw bi nga xamee ne ay sanctions américaines daal euh, américains yi dañoo amal ay sanctions ci ay dirigeants chinois yoo xam ne ñoom dañu leen accuser ne ñoom dañuy euh, def atteinte aux droits de l'homme dañuy xoñoñal daal euh, dis mbaa ñuy sonal minorité musulmane ouïghour bi nga xam ne ñu ngi nekk fële ca Xinjiang ca Chine dañuy tëjee ak sport ak lii di tirage au sort quart de finale ak demi-finale Ligue de Ligue des champions bi nga xam ne amal nañ ko tey ci àjjuma ji première quart de finale bi nag bi ñu tiré euh, moom mooy vainqueuru match Manchester City ak Real Madrid bi nga xam ne moo war a dajeeg vainqueuru match Juventus ak Lyon mu ne loolu nag euh, day joxe loolu nag euh, mën na tax ñu yaakaar quart de finale boo xam ne kon entre Juve lay doon ak kii di Real beneen quart de finale bi deuxième quart de finale bi moom mu ngi war a opposé vainqueuru match Barça Naples ak vainqueur u Bayern Chelsea vainqueur u quart de finale boobu nag euh, muy quart de finale moom moo war a rencontré vainqueur demi finale 1 euh, kon nag euh, mën nañ xaar benn classico kon en demi finale kon mun nañ xaar mën nañ xaareen mën nañ daal xaareen di kon ab classico boo xam ne dinañ ko am en demi final wala match Barça Juventus quart de finale 3 bi nag moom mu ngi opposé Atlético Madrid ak Leipzig quart de finale kat bi mu ngi war a nekk entre PSG bu Idrissa Ana bu PSG bu Idrissa Gana Gueye ak Atlanta Bergame vainqueur quart de finale 4 bi nag euh, moom moo war a kii di vainqueur quart de final 3 match yi nag euh, dinañ ko amal euh, bu 12 août jotee fële ca Lisbonne ci capitale bu Portugal léeg-léeg rafetu seen